soxna xari penda radiyallahu ta'ala anhu mas naa yor ab raiya sëriñ tuba xaada la wala maxtaro laaj ko ku ko bind mu ni ko moodu faal doomi bàyyi dem ba sëriñ tuba xaada la wala maxtaro wax ni nañu ko jëli kooku naaj waratu koo tiim mu ñëw sëriñ bi jox ko daayi ñeenti bunt ni ko sëb lëggéey ca yaxal alxuraan laa la ko defloo kamin ba mu njëkk jox sëriñ bi dani ko bind nga ko na ko saa sunu borom wàccee kamil bi yiw wi ci sabaay am juróom ñaar fukki at ak juróom ñaar yamu dund amu ci yiwu ni toll siiw na lii dañuy xamal màggug mind ak màggug liggéeyal Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaalawoo mel na ni bind alxuraan bu saxee dana dem ba nga xam ni moo gën a màgg jàng alxuraan daa ni jàng day yéeg bind nag day des ci yaram wi ak ci kaw si te fi mu ne loo bind képp ku ko jàng da am tuyaaba ci jàng gi mu ko jàng wallahu alam